d'accord ci bisu ah, anniversaire bi. ginnaaw déclaration politique. beneen li ñu nammeeku mooy président nee na euh, li nga xamante ne doxoon na ko fële ca mbuurkat ci mbirum hectares yi jël nañu rapport yi rek yi dal di ko koy jox euh, nangu kër yi nga xamante ne am na ñoo xamante ne moom nañ ko te waruñu ko moom ndax askanu Sénégal am na ñu ko gën a yelloo loolu tamit bokk na ci waxtaanu président de la république. waaw xam nga loolu ba tey ma xam ma man ñii saa ñu waxee damay rus. lu tax. waaw un chef d'état bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk dina wàccu ak otoom dem ay mburkaat di di wàcc ci ay terrain ay ay littoral bi ay feneen ak feneen ak feneen un président bu mat sëkk Descos lan mooy seen liggéey ma yooyu noonu hmm. di dem ci kër yi nga xam ne bu ñu gisee lu jaaduwul dañuy ñëw def arrêt Descos ah. ñoom lan mooy seen liggéey wala wala boog bu fekkee président de la république Bassirou monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa bëgg a liggéeyee rôlu waa Descos waaye dañ ko jox ten Descos ah peut-être demam boobu am na njëriñ ndax rapport yi teel naa dossier yi. benn njëriñ amu ko ci. Ah, lépp doxi na tàmbi géej man maa ko wax fii je défie quiconque lépp doxi na tàmbi man Thiès laa dëkk. xaaral xam nga ñu ne. waaw ñu ne ñu ne yóbbante sedd na tànk waaye seddul xol. moo tax man la lépp doxi na tàmbi géej. ñoom ba ñu demee moom doxee woon na tànk. waaw fu mu nekk nii résultat génn na ndax nee na jotaan na ci ci ci parcelle yooyu ci dossier yooyu. yan parcelle la na xaa ñu mi ngi mel ni euh, Zeyna li ma ko war a mooy hmm. sàcc buy dàq sàcc. Hmm. xam nga sàcc buy dàq sàcc. dafa am benn anecdote ma lay ci lu maam dafa xawoon roog lii Bassirou Diomaye fay def ca mburkaat mook Ousmane Sonko ak ay seen i maire ak seen i affaire yooyu. Hmm. daa am benn benn sàcc boo xam daa mës a sàcc. di daw benn waaye di ko topp di ko topp di ko topp ëllëg mu yuuxu ko sàccee pour nit ñi génn daa topp jàdd rek sàcc bi tourné jàkkaarloom naan ko sàcceey sàcceey gaa yi daw dàqi waaja waaja xam ne bu taxawee gaa yi rey ko. sàcc bi nekk ci mbooloo bi ñuy daw di dàq waa ji. Uh-huh. dem nañu ba jàpp waa ji daa koy laaj waa ji ni kooku doon ma dàq mooy sàcc bi maanaam ñii ay dàq ay sàcc yu dàq yu dàq sàcc lañu. Uh-huh. parce que tey terrain mbuurkaat yi bu ñu nee mbuurkaat dafa am ay luubal terrain nangam nangam ba si président de la république déplacé jóge Guinée-Bissau wàcc ci avion bi wut si Thiès dem ba mbuurkaat ñu tàllal ko dossier yëpp ñan ñoo ko doon waroon bi mu taxawee Birame Souleye Diop mi ngi ci ginnaaw. Mm. babakar Diop mer la Thiès mi ngi ci ginnaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm. te dina la wax fen yi nga xamni wa passif nekkon nañ ko diko ko fen askan wi lepp ci terrain mburkaat yi. nañ fi Abdou Mbaw daal ni Abdou Mbaw amna fa 200 parcelles amna fa nangam parcelles Abdou Mbaw ne ku fa gis ñetti kër yu ma mom jëlal ñaari jox ma benn bi xana lolo gëna dé mm-hmm. ñetti kër yo xamni Abdou Mbaw député président parlementaire Benno Bokk Yaakaar daal ni képp ku fa gis ñetti kër yu man Abdou mbaw ma moom may naa la ñaari yow kay dimbali ma jox ma benn bi. ah loolu de moom doy na ñu ni Idrissa Seck am na fa xaw ma nangami junniy parce xam nga boo xoola ci pouvoir bi fi nekkoon ñëpp ci ñi ngay dégg ñi naan ñi ñuy wooye anti système. mennum pap job de la ñuy wax ni am na fa ay terrain te bañ ko laajee dafa infirmer ni am naa fa ay terrain te terrain yi jotaguma kayit yi ab hôtel laa fay laa jaay état bi ñu fayee ma ko suuf soosu. weccoo la woon rek bu ñu bëggul nañu jël seeni terrain te jox ma Sallama moom léegi nag ñan ñoo fa am Birame Souleye Diop Birame Souleye Diop. Hmm. mi nekkoon maire de Thiès te nekk ministre de mine de des xool l'énergie hmm. moom biram Souleye Diop cinquante parcelle hmm? cinquante hectares maanaam euh, cinquante parcelle cinquante hectares la fa amoon ba pare ñu ni dañ ko koo jox ci turu maire bi. ñii dañ koo jox ci turu Birame Souleye Diop te agent municipaux yi nekk ca maire ba yépp amu ci kenn ku gis terrain am nañ ñu ma dégg ñu ni euh, cinquante yi vingt cinq yi dañ ko waroon séddale ñi liggéeye ci maire bi mais ñiy liggéey ci maire bi ñoo gën a liggéey ndey xale bi dawal Jakarta nekk biir Thiès kon daal bu fekkee liggéeyoo ci maire ba yow waroo am ci terrain yooyu. ki nga xam ne mooy Babacar Diop maire centre ville cent vingt parcelles lañ ko fa jox. ma dégg ñu ni séddale na 60 parcelles yi 60 euh, hectares yi mu des 60 hectares tok mo moo ci ca ginnaaw Bassirou Diomaye Faye daanaka mburkaat jeex na de ndax euh li wax coow lee fi nekk rek mais du lu reey reey rëy de <laughs> diggante fi ngay duggé APH bi la ba bi ngay ag si bi xutaan képp la nekkul lu reey reey reey rëy ay jooni mille millions yi millions yi hectares dedet xam nga caaxaan baaxul. léegi jóge nañu foofu wax ci mbuurkaat bi ba ampleur bi tag pour fàtteloo nit ñi li ñu diggoon askan wi muy dund gi li ñu diggoon askan wi mooy Sénégal bu énergé. ñu jël wax ji dévier ko ci ay mbuurkaat ak mbuur 25 ak mbuur 2900 ñun lijjantiwuñu ay mbuurkaat ak yooyu mbuurkaat bu ngeen ku ngeen fa gis mu sàcc fa terrain jàpp leen ko ñun opposants yi ñoo ko wax. ku gën fa gis mu mu sàcc fay tere nangu leen ko jàpp leen ko basir jomay fay 4 hectares lam 4 hectares 300 mom lañ ko jox ñaga ñaaw kiko jox moy ministre bi nga xam mom mom mom, mom la nomé ci sanjara ana terrain yoyu xana mom bu fekkol dañu wote jub jubal jubanti basir jomay fay dafa wara jël ay terrain dal ni delo naa ko état bi. daan ne yéen ñi nga xam ne maa leen jiite ñu ànd liggéey ba ñu fal ma delloo leen li nga xam ne jol ngeen jël ngeen ko mais ngeen ni bokk seen i pare di di lijjanti leneen Bassirou Diomaye Faye bi ñu ko faloo ba tey fu mu nekk ci hôtel yi la nekk. hôtel yi nekk ci ci ci ci ci littoral bi. littoral bi fi mu nekk. joxe na explication li ko waaye explication yi lan. nee na moom yorul papa yaay doomu kese te palais ba construire ko comme ku yor famille bu rëy. waaw foofu nag dinaa fa dugg. est-ce que palais bu Sénégal. Hmm. dañoo dañoo dañoo dañoo préparé wu bis bu ñu un président de la république mm. ah yow sa papa sa yaay sa dom sa famille yëpp dañoo wara a dëkk biir palais xam nga état ku mu xam mm. yow président de la république la xam ak sa soxna ak say dom bu yeboo sa mu nek 2900 dom mais sa doom nga gisuma fenn fu constitution bi bind ni palais bi yaaw sa sa njab sa papa ak sa yaay dañoo wara a dëkk palais amul bu ñu ko defee def lu musul am senegal def lu musul am senegal sa waay mag président Macky Sall mi fi jógee mais amoon na ay rak ak ay mag ay mbokk. non président président njaboot gi ci boppam ñoo njëkk doyal palais ñoo ko ne dañuy dellu. njabootu président Macky Sall musu musu ñëw dëkk palais. non nee na ñëw nañ mais yàgguñu far ñu delluwaat. xoolal njabootu président Macky Sall musu ñëw dëkk palais. pale képp ku fu ma si dëkk ci njabootu président mooy ñi mu jur. waaw loolu laa mais du ay rak Alioune Sall mi mu suta fanaan pale. la wax ma ne la même doomam yi ak soxna si. waaw lu tax président daal bi Bassirou Diomaye Faye daat ni. Ah, moom day waaj pour ay njabootam gépp mun leen biir pale. ay papa waxul papa yaay doom de. laa déglu naa vidéo bi seen daan wax bu baax. Hmm. loolu la wax dafa ni dañoo nekk di réflexionné waat. parce que ni ñu ko defee woon. monsieur madame la woon waaye da koo bëgg def papa yaay doom parce que moom sax vraiment dafa bëgg a dëkk ak njabootam xaw ma nangam nangam est que yaayam lay jëlee njaga ñaaw ñëw indi ko biir palais bi ni ko dëkkal fii. su ko neexee mooy président waaw su ko neexee mooy président mais constitution prévoir wul loolu. c'est pas une de sécurité sa yaay mënul dëkk ci biir palais palais bi pour liggéeyukaay la ñu bañ ngay wàcc. di di indi ay circulation ak ku di indi ay xumbaay ca koñ ba moo tax ñu dëkkal la ci palais bi nga ne fa ngay liggéey wàcc noppal escorte bi booy génn rek war a voyager wala nga war a am business moo war a doxi ngir jariñu Sénégal rek nga war a mën a génnee palais bi mais président warut a génn ci biir dëkk bi lu bari parce que day barre circulation bi day yeexal économique bi. day créer embouteillage. créer loolu day daan économique léegi nag gis nga affaire caaxaan yi ñu def nii président Diomaye euh, taxaw na expliquer